boo leen déggee bàkk bi ndeysaan ngeen xam ne lamb ji a xew fu muy amee ñu ne ca Bettenty du 27 au 30 juillet waa Layta production ñoo fa woo mbokk amateur yi mbokk mbër yi tegal leen lu tolloog set nag ndeysaan muy doon ci ñeenti drapeau maanaam quatre catégories race ba am na nag poussière bi am na nag raaw ga du ñaari nag waa léegi ba ndeysaan ñu ne ñetti nag te drapeau bu si ne dañ ciy toftal xaalis bu bëree bëri ndeysaan ñu leen fay woo foofu lay xewee ca Bettenty du 27 au 30 juillet animation ba ndeysaan Ndeye faatu Adama Jali la voix d'or ak ki nga xamante ne moom mooy Mor Ngom ñoo koy assuré. Thank you.